xam nga droit xel mu jub rek boo ko amee mën nga cee wax parce que en réalité ñun lu ñuy wax c'est les aspects politiques du droit en réalité loolu fii ñoom ñuy wax ñeem sax tanewuñ ci kenn déjà dinaa ñëw tuuti ki ñuy wax ne moo gën a aay kay du ngi ne normalooti na mooy Ismaïla Madior Fall te nee neen daa aay yow koo xam da ngaa aay te fu ñu waxee yaay normal ñun li ñuy wax la la mooy mooy mujj nekk dëgg kon aayam gi fu mu ko féete waaw moom aayam gi ñuy wax moom Ismaïla Madior Fall fu mu ko féete yow buñ nee da ngaa aay te li ngay wax lépp buñ paree juge yi nga xam ñoom ñoo ne ci réew mi dañ koy jël tege ne ne la li nga wax dara du ci dëgg kon am aay bi kon ñun ñu nuy wax ne aay ñu finalement ñun toujours ñooy nekk ci dëgg kon finalement kan moo aay moom moo ay wala ñun ñoo aay kon nag nañ bàyyi seen caaxaan xam nga affaire bu du ay aay xam nga affaire bi lan la nekk ci dëgg nekk ci dëgg boo nekkee ci dëgg yàlla day leeral sa xel boo nekkul ci dëgg nekk ci caaxaan yàlla day lëndëmal sa xel ci caaxaan ku ci di ci gont mënoo am ndam yàlla mooy dëgg moo tax dëgg rek la yàlla subhaanahu wa taala boo nekkee ci dëgg yàlla leeral sa xel boo nekkee ci caaxaan yàlla lëndëmal sa xel loolu moo daal Ismaïla Madior Fall naa ci ñëwoon léegi nag bi ñu defee seen ñaari tappale yooyu maanaam signé seenub décret tappale signé li nga xam dem voté seenub loi tappale à l'Assemblée national léegi nag euh, Ayib Daffé Mohamed Ayib Salim dafe mooy le grand mandataire Ayib dafe dem déposer euh, requête Euh, ca conseil constitutionnel pour euh, demander euh, conseil constitutionnel pour mu àddu ci décret bi nga xam ni moom la moom la moom la Macky Sall jël ak loi bi nga xam si moom la député Benno Bokk Yaakaar yi ak député tappalekat yu PDS yi dem voté léegi nag moom ay dafee ànd ci ak Samba Dang ak 38 députés ak ñeneen ñoo xam ni mënees na ci lim ay ñoom Cheikh Tidiane Dieye ak ay ñoom Habib Sy ak Bassirou Diomaye Diakhar fay ak euh, Thierno Alassane Sall euh, ñoom ñii daal euh, ak ñeneen ñoo xam ni defoon nañ ay requête ñoom ñoo dem pour wax conseil constitutionnel na àddu ci mbir mi parce que décret bi jaarul yoon loi bi jaarul yoon léegi nag conseil constitutionnel ci séance bi mu def tey le 15 février 2024 moom moo àddu ci loolu wax ni Ismaïla Madior Fall déjà dani woon le conseil constitutionnel va se déclarer incompétent ndaxte mooy euh, inconstitutionnalité yooyu mu doon jéem a soulever waxu tappaleem yooyu fu ne mu wax fa tappale wër di lëbëj jaxase euh, jaxase mélangé boobu mu doon def pour tappale pour na saxal xelu sénégalais yi daane conseil constitutionnel day déclaré wu incompétent man leen du dëgg léegi nag conseil constitutionnel tey àtte na léegi bi mu àttee ci fond bi pour mu gàtt rek ci yéen jarul ma koy guddal dani euh, day déclarer les requêtes recevable maanaam càkkutéef yi nga xam ne moom euh, ñoom ñu nekkoon ay candidat ak ay député càkkutéef yi mu defoon pour wax ni na àddu ci décret Macky sàll bi ak loi bi ñu voté à l'Assemblée nationale ci tappale léegi na ci àddu mu ne loolu ñu sàkku pour mu àddu ci nee na nangul na leen ko loolu njëkk a décidé moom mooy article premier bi mu ne article deux loi portant dérogation au dispositions de l'article 31 de la Constitution, adopté sous le numéro 4 2024 par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024, est contraire à la Constitution. mu ni moom conseil constitutionnel loi bi nga xam ni dañ koo tuddee loi bu lay may prox ndoll parce que prox ndoll lañ doon wër mu ne loi prox ndoll boobu nga xam ni. dañ koo sukkandiku ci xëtum fanweer ak benn bu constitution bu Sénégal bi porox ndoll boobu ñu jël ñu ne ñu ñu jël ko ci euh, assemblée nationale numéro ba nekk 4 2024 mu ni ci ndajem juróomi fan ci weeru février 2024 bi mu ni moom conseil constitutionnel porox ndoll boobu ñu jël du porox ndoll bu baax fàtt naa ko nee na fàtt na porox ndoll boobu parce que porox ndoll boobu baax nee na loolu dëppoowul ak li nga xam ne moom mooy constitution bu Sénégal loolu mooy article deux bi nga xam ne moom la tey conseil constitutionnel jël mu ne article trois maanaam ñetteelu xët ma mu ne le décret numéro deux mille vingt quatre cent six du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est annulé mu ni décret boobu nga xam ne décret 2024 106 la nga xam ne président de la république mi ngi ko jëloon ñetti fan ci weeru février 2024 nga xam ne dañu woon neenal na lépp li jëmoon ci mbirum élection yi nga xam si jëloon na ko mu ni décret boobu nga xam ne moom moo doon wéyal lépp lu jëm ci mbirum élection présidentielle nga xam ne ñu ngi ko jël euh, te te te élection présidentielle ñu jàppoon ko le 25 février 2024 nee na décret boobu neenal na ko moom conseil constitutionnel nee na décret bi annulé na ko mu ne décret bi annulé na ko. annulé na décret ba décret bi neenal na ko décret bi amatul léegi kon mu ne moom conseil constitutionnel la présente décision sera publiée au journal officiel de la république du Sénégal mu ne léegi nag lii nga xam ne moom mooy dogal bi na ko nañ ko dugal ci journal officiel bu Sénégal ñi signé affaire bi nee nañ ñi ko fekke décision bi euh, nga xam moom lañ jël tey ci 15 février 2024 nee na ñoom ñooy ñoom ñooy moom Mamadou Badio Camara président bi moom madame Aminata Ly Ndiaye euh, vice président euh, Mouhamadou Diawara Youssoufa Diaw Mbodj madam Awa Dieye ak ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly mu ni ñoom ñii ñoom ñoo jël dogal bi muy dogal boo xam ni dogal bu leer nañ la léegi nag kon leer na nañ ne conseil constitutionnel neenal na lépp li nga xam ni euh, con euh, ñoom Macky Sall ak ñoom àndal jëloon ñu ne kon léegi neenal nañ lépp li nga xam ni moom lañ moom lañ jëloon ci tappale léegi nag kon ci biir décision bi mën naa leen ko andil conseil constitutionnel bi am na leneen lu mu wax mu ni bi mu neenalee décision bi nga xam si moom la Macky Sall jëloon muy décret boobu mu jël euh, jëmale ko ci corps électoral mu ni bi mu ko lee maanaam bi mu ko annulé ba pare daa annulé waale loi bi nga moom lañ voté assemblée nationale donc kon lépp luñ defoon ci tappale nee ay caaxaan la jël na ko tege nee léegi teg ca mandat wu sàll Sall mënuñu koo yokk parce que loolu mi ngi ci biir texte bi mais texte bi moo gudd mais ci tënk dani moom la mu dogaloon ne Macky Sall mënta wàññi mandaam loolu la dogalaat ne Macky Sall mënta yokk mandat mu ne moom conseil constitutionnel moo dogaloon ci bi ko Macky Sall euh, laajee ni ko ndax mën ngaa man ndax mën naa wàññi mandat nee na ba ko Macky Sall laajee ni ko ndax mën naa wàññi mandat daf ne ko woon mënoo wàññi sa mandat loolee mu ko waxoon nag nee na du weddi boppam moom conseil constitutionnel nam ko waxee woon ne ko mënoo wàññi sa mandat noonu la koy waxewaat tey ni ko mënoo yokk sa mandat benn fan. mandat bi le 2 avril lay jeex deux avril la mandat bi di jeex comme deux avril lay jeex mënoo cee yokk benn fan le 3 avril incha allah beneen sénégalais mooy taxaw naan sénégalaise et sénégalais di waajal feetu 4 avril di wax discours à la nation conseil constitutionnel nee na discours à la nation bi war a am incha allah le 3 avril nga xam ni toujours président de la république day jàkkaarlook sénégalais yi pour wax ak ñoom. ci li nga xam ne moom la war a waajal ci 4 avril bi conseil constitutionnel nee na Macky Sall discours boobu du ko defaat incha allah discours bi jeex na discours ba mu defoon euh, ca 3 avril bee ñu génn nee na boobu mooy discours am bu mujj kon trois avril bii nu jëm beneen sénégalais mooy def discours à la nation waaye di doon Macky Sall te beneen sénégalais bii def discours à la nation ci ñaar fukki candidat yi mu tànn moom conseil constitutionnel kenn ci ñoom rek la mën a doon mais mënut doon Macky Sall li ñu ciy mooy conseil constitutionnel li États-Unis wax li États-Unis wax ci euh, li États-Unis wax ci lettre bii li li li Anthony Blinken wax Macky Sall li Anthony Blinken wax Macky Sall par téléphone ni ko organiser l'élection yi le 25 février 2024 soo ko mënta organiser le 25 février 2004 2024 na nga jàpp dat bu gën a jege. dab bu ko gën a jege bu gën a gaaw nu mu gën a gaawee donc américains yi dañ ne ko nu mu gën a gaawee conseil constitutionnel tamit nee nañ Macky Sall nu mu gën a gaawee nu gën a gaawee jàpp beneen date bu gën a gaaw maanaam bu fekkente ni mënoo koo organiser le 25 février comme ni ko euh, américains yi waxee Macky Sall noonu la ko conseil constitutionnel bi tamit waxee dañ ne ko nu mu gën a gaawee bu fekkente ni mënoo koo organiser le 25 février 2024 muy date bi nu jàppoon. na nga jël date bu gën a gaaw nga nga organiser ko ca waaye na nga fexe a élection yi lépp na jeex balaa 2 avril 2024 na leer ci bopp sénégalais yi balaa 2 avril parce que la trois avril ki war a taxaw ci palais bi def discours mënta doon Macky saal il faut mu doon beneen sénégalais boo xam ci ñaar fukki candidats yi yi conseil constitutionnel tànn ci lay mën a doon donc kon ça veut quoi. mooy ay réajustement lañu mën a def maanaam ay coppite yu ndaw ci date bi maanaam 25 février kenn mënatu cee dem élection loolu c'est clair parce que campagne bi dafa wàññeeku parce que moom moo saboté campagne bi kon ni mu leen ko waxe moom daa tiit xam ne parce que Diomaye Faye day gagné mu saboté campagne bi campagne moom saboté na ko parce que 25 février tey la 15 donc euh, 9 jours moo ci des parce que da ngay noppalu benn jour doo ko dem élection donc le 24 amul campagne bu doon élection yi jaar na yoon. élection yi day campagne day jeex le 23 à minuit le 23 à minuit la la campagne bi waroon a jeex parce que vingt 24 amul campagne ñépp dañuy noppalu xëy la vingt cinq dem voté ji kon fii ak le 23 euh, comme tey la 15 te tey lañ jël décision bi mooy une semaine rek moo fi des campagne bi nag mënta doon une semaine comme campagne mënta doon une semaine il faut mu nekk ñetti semaine donc ñaari semaine dafa jàll ci tappalay président Macky léegi nag kon ñaari semaines yooyu foog ñu dab dabaatal ko loolu tax datu 25 février bi mënatu la nekk datu 25 février bi mënatul a nekk parce que foog ñu waajal conseil constitutionnel euh, am na càkkutéef bu euh, euh, Bassirou Diomaye fay defoon ci requête bi maanaam requête bi maanaam càkkutéef bi Bassirou Diomaye Faye dañu ko woon neenalal décret bu Macky sàll bi annuleel tamit wala neenalal. li nga xam ni moom la assemblée nationale bi def ñaar yëpp na ko neenal waaye na nga jàpp date beneen date pour élection yi loolu tamit Bassirou Diomaye Faye euh, euh, boo bokkoon na ay càkkutéef yu mu defoon conseil constitutionnel lool pour ñu yëgal leen ko loolu tamit bokkoon na ci waaye conseil constitutionnel lim tontu Bassirou Diomaye Faye mooy que loolu nga xam ni moom ngeen sàkk woon pour ma jàppaat beneen date mënuma koo def ndaxte te ma ndax. Euh, lépp yemb na pour ñu mën a dem élection maanaam man du ma administration bi comme administration bi organiser élection yi man xaw ma fu ñu toll ci waajal gi ndax bulletin de vote yi ndax ndax pare na ndax urne ya waajal nañ ko ndax bureau de vote yi def nañ mandataires yi ndax def nañ représentant bureau de vote yi ak yooyu comme saboté am na ci ba heure bii man comme xaw ma fu mu toll damay bañ a jàpp ab date boo xam ne su ma ko jàppee xëy na mën naa andi ay jafe pour ñu mën koo doxalaat loolu rek moo tee conseil constitutionnel jàpp beneen date. léegi nag comme loolu lay bañ pour jiitu jaaxa am léegi dani ko nag delloo naa la ko yow Macky sàll ak sa administration waaye jàpp leen ab dat boo xam ni lépp di ngeen ko mën a organiser ba le 2 avril dina fekk président bu bees bi mën na mën a taxaw nag daa di waat daadi waat ci kanamu sénégalais yi bu ñetti fan jotee incha allah mu def discours à la nation kon lii lañ leen bëgg a leeral pour mu leer Macky Sall marge de manœuvre amu ko. diir bi mu mën a tànn élection yi mënta romb euh, mois de mars parce que su deful élection bi ci mois de mars bi kon le 2 avril président bu bees bi du mën a du mën a taxawaat pour que le trois avril mu jàkkaarloo ak sénégalais yi donc il faut le 2 avril Macky Sall génn palais bi mu ñëw jàkkaarloo ak ki koy wutu ñu takkal caq bi Bassirou Diomaye Faye caq bi incha allah. sénégalais yëpp taxaw tele yëpp di ko wane même tele tappalekat bi euh, euh, RTS taxaw di wane RTS di wane Bassirou Diomaye fay ñu koy takkal caq bi bu ñu koy takkal caq bi Sénégal gépp di ko seetaan àdduna bépp di ko seetaan Macky Sall euh, le visage renfrogné dana mer mais du ca man dara dana takkal caq bi Bassirou jomaay fay Bassirou Diomaye fay ànd ak moom gunge ko ba ci gris yi bu ñu ko gungee ba ci gris yi mu jël otoom mu dem bu demee fekk jënd na billet ba pare mu dem Maroc parce que parce que euh, euh, Souleymane Jules Diop nee na Macky Sall na Maroc ak njabootam kon moom waajaloon na bis bi xam na ne day dem léegi comme waajaloon na bis bi bu ñu takkalee Bassirou Diomaye fay caq bi ba pare léegi Macky ñu gunge ko ba ci gris yi mu jël otoom bu ñu demee ba ci grille yu palais bi ba mu jël otoom mu daal di taal otoom dem bu ko neexee sax awee fa jaaree fa dem aéroport bu fa jaaree dem aéroport jaaree fa dem Maroc comme Maroc la la dem déménager wala mu dem France ak fu ko neex mais li leer daal mooy conseil constitutionnel nee na Macky Sall na jàpp dab beneen boo xam ni danañ mën a organiser élection yi ba le 2 avril moom ki koy wuutu. ki nga xam moo nar a gagné élection yi le 2 avril mu mën a waat pour wax ne léegi moom mooy président de la république donc loolu mooy décision bu mag bi ak lu la nit mën a wax lii mooy décision bi le conseil constitutionnel nërmeelal na tappale yépp yin yin defoon muy décret bi muy loi ba lépp nërmeelal na ko mais da caa teg nii date bi nga xam ne moom lañ war a jàpp moom li tax jàpp ko comme ni ko Bassirou Diomaye fay demandé woon parce que am na am na ñu bëri ñu demandé mais dañ doon wax rek nañ nañ dindi décret bi nañ dindi euh, loi constitutionnelle bi mais Bassirou Diomaye fay moom ci càkkutéefam da caa tegaatoon xam nga bas nag daa xarañ. da caa tegaatoon ne ko jàppal datu élection bi boo ginnaaw bi nga nërmalee ginnaaw bi nga nërmeelalee décision tappalekat bu Macky Sall bi ak bi nga nërmeelalee li nga xam mooy loi bi ñu voté à l'Assemblée nationale ci caaxaan bi nga ko defee ba pare léegi nag na nga ñu jàppal beneen date parce que 25 février moom yàqu na loolu la Bassirou Diomaye Faye sàkk woon conseil constitutionnel ne ko loolu li tax mënuma koo def mooy damay bañ jàpp date boo xam ni lépp yembagul. kon danoo war a yóbbu urne yi war a yóbbu euh, bulletin yi war a def yëpp matériel électoral beeg yëpp mu ne nag loolu la bëgg nguuru président Macky Sall moom waajal lépp ba noppi jàpp date boo xam ni premier tour bi dina mën a am ak deuxième tour bi lépp am ba le deux fekk fal nañ président la république bi nga xam moom moo lay wut te man sax jàpp naa ni fokk ñu jàpp date premier tour ak deuxième tour mais élection yi incha allah bu lépp jaaree yoon dès le premier tour la Bassirou Diomaye Faye incha allah di de le premier tour loolu ñëpp xam nañ ko xam naa nag saan candidat yu bëri tey moom du ñu reer candidat yi xam nañ ni parce que amay candidat yu bëri ñu ngi doon rêvé pour ñu éliminer bas mujj ñu ko éliminer bi bi nee Bass candidat la ba léegi ñu bëri ñoom dañoo feebar parce que man gis naa ay candidat yoo xam ñu ngi doon lay la ko cëpp cëpp yi may gisatuma leen ñoom ñëpp seey nañ ñoom candidat yi doon lay layee ko cëpp cëpp yëpp déggatuma leen fenn parce xam nañ ni demee élection ils ne verront que du feu dans cette affaire parce que en réalité wax dëgg yàlla sénégalais yi ñoom demul leen fenn euh, fudul wax dëgg yàlla demul leen fenn foo xam war a ñoo taxaw di leen voter man nag élection yi li ma ci metti rek vraiment leen la quoi le fait que Karim Wade bokkul sër ma mettee man dama doon ñaan Karim Wade cey bu ma mënoon a fexe rek ba Karim Wade bokk pour ñu won waa PDS yi que sénégalais yi xoolal Karim Wade bokkoon ndaare lay jël kenn du ko voter Karim Wade su bokkoon ci élection yi ci la waa PDS yi xam ni tekkeetuñ dara ci kanamu sénégalais yi bu Karim Wade bokkoon ci élection yi ci lañ xam ni ci la nga xam ni lépp dëgg la mais malheureusement y a aucune possibilité pour Karim Wade bokk ci élection yi ak maa metti man dama doon ñaan rek Karim Wade mu am une possibilité pour mu bokk ci élection yi pour ñu woon sénégalais yi que Karim Wade non franchement yàpp gin ñu yàpp ñun ba war a toog ca ca ca Qatar di lëbëje suñuy élection no moo tax la conseil constitutionnel quand même est à féliciter il faut ñu féliciter leen ci seen responsabilité bi ñu jël léegi nag leer na ko ne élection day am incha allah ci délai bu gàtt date bi nag Macky Sall ñu ngi koy dégg mais date bi mënta génn mars parce que fokk ñu am trois semaines de campagne électorale ba noppi def élection bi ba noppi mu am deux semaines pour ñu dem au deuxième tour donc euh, Macky Sall lépp da ko war a gaaw jël donc il faut mu jël rapidement un décret boo xam ne day wax ne date bi tell la donc loolu la ko conseil constitutionnel wax il faut mu jàpp date dat boobu mu jàpp nag na seen xel dal mënta génn mars parce que su génnee mars date bi nga xam ni moom mën cee yokk benn fan comme ni ko conseil constitutionnel waxee parce que nee na ko mënoo yokk sa mandat benn fan benn comme mënta yokk mandat benn fan kon fokk élection yi ñu def ko ci mois de mars mois de mars kese la élection yi mën a nekk pour que ñu mën a respecter les trois semaines de campagne électorale bu ñu demee campagne nag dëgg yàlla li ci neex mooy cey cey bi campagne insha allahu campagne non man xam naa ñoo xam nee nañ ma dañu jóge bitim réew ñoo ci campagne bi insha allah am na ñoo xam nee nañ ma dañuy xaar rek vol la ni jël pour bu ñu xasee jàpp date bi rek campagne bi takkar naa si man li ma neex mooy waa léegi Amadou Julde Ba moom fan lay campagne man fan lay campagne laa bëgg xam maanaam amadu Julde Ba fan lay campagne ban mbedd lay jaar est-ce que ñeme naa jaar ci mbedd bi ki ni di campagne est-ce que jaar ñeme naa jaar ci mbeddu waalal day naan day campagne est-ce que ñeme naa jaar ci mbeddu kaba ki yi naan day campagne cëy bu ko defee Amadou Julde Ba bu la ci bu la saw fit may mukk ngay dugg ci quartier yi naan da campagne bul campagne de élection yi moom bu la ci kenn dugal ci campagne man daal li ma jàpp mooy booy campagne euh, demal cib saal nga toog fa wax ak ñi ngay waxal boo pare taal say oto demaat ci beneen saal mais bul nekk ci mbedd yi campagne de ndaxte loolu sonkorisé bi la nar a dal ak coono bi nga ci nar a am ak ni la sénégalais yi nar a toroxale man jàpp naa ne képp ku lay digal bul nekk ci mbedd mi naan da ngay campagne kooku moom bul ci dugg léegi daal li neex mooy non seulement la programme de Bassirou Diomaye Faye est le meilleur programme parce que Bas bis bi ñu war a taxaw war a présenter la programme de Bassirou Diomaye fay bu ñu lancé la campagne de Bassirou Diomaye fay mais sénégalais ci ngeen di xame ni mais macha allah Ousmane Sonko kenn du moom bis bu ñu lancé la programme de Bassirou Diomaye fay ci ngeen di doog a xam ne nag euh, Ousmane Sonko kenn du moom donc li nga xam ne moom moo am mooy euh, macha allah wax dëgg yàlla daal nañu sant yàlla nañu sant yàlla parce que euh, ndam am na ndam amagun na maintenant nag nañ leen leen surveiller parce le mandataire de Bassirou Diomaye Faye mi ngi laaj la fichier électoral lu mat ay fan a ngi nii nangu ñu ko jox alors que dañ ko war a jox le fichier électoral depuis le 9 février dañoo am droit dafa am droit ñu jox ko le fichier électoral une semaine a ngi nii Amadou Ba mi ngi xaar fichier électoral bi kenn joxu ko fichier électoral bi selon la loi dañ ko ko war a jox kon nag nañ ko jox la fichier électoral fichier électoral bi dañoo bëgg a xam li ci ne parce que fichier électoral mooy déterminer l' élection kon bu leen nelaw bu ñu naagu de ma ki sàll kuy xeex ak moom doo naagu yóbbu nañ ko quatre appui léegi ba max mu daanoo ci des yóbbu nañ ko quatre appui ba max mu daanoo ci des waaye nag même bu fekkente ni ba max mu daanoo ci des boo juumee mën naa yëkkati benn tànk bi boo juumaatee mën naa yëkkati beneen loxo bi bu leen ko may mu yëkkati loxo bu leen ko may mu yëkkati tànk ba mu wax mu daanu moo ci des léegi nag nu ngi koy ba mu waxee mu daanu nanu jëli carte yi préfet yi ak sous-préfet yi commission yi ngeen tegoon pour di distribuer les cartes te fan yépp ngeen dem tëj ko teguleen ko ci yoon jox leen nit ñi seeni carte donc sénégalais yi dem leen ngeen jëli seeni carte c'est votre droit le plus absolu benn préfet amu fi droit di tere jox nit ñi seeni carte dem leen jëli seeni carte benn ñaar bu ngeen jëlee seeni carte ba pare na ngeen waajal yéen ñëpp bureau de vote yi jour jour élection yi ku ci nekk nga xam ban bureau de vote ngay taxaw ak nan ngeen koy euh, organiser dëkk bu nekk quartier bu nekk bureau de vote bu ne fu mu nekk ñu xam bureau de vote bi nekk ñan ñoo war a taxaw saytu li nga xam ne moom moo nar a am le jour de l' élection ku voté ba pare nga toog xaar bu kenn euh, bis boobu na jaral ñëpp ñu toog xaar bu kenn voté ñibbi sa kër nanu voté ku ci nekk bureau de vote bi nga voté na nga voté ba noppi toog xaar. képp koo xam ne dafaa nar a ñëw voté te daaw fa voté wala xamu leen ko fa da ngeen xam fan la dëkk parce que booy changé bureau de vote da ngay indi quartier ba nga dëkk ak yépp pour ñu man laa soppil sa bureau de vote kon nag kenn amul droit di def ay transfert d'électeurs di jële ñoo xam ne ay sénégalais ñuy voté ak yooyu yëpp na nit ñi vigilant na nit ñi vigilant ci vote bi vote bi jaar yoon bu am benn bureau fictif bureau yi bureau bu ci nekk nañu xam fan la nekk ak ñan ñoo fay voté ñu xool fichier électoral bi xam ñan ñoo fay voté lool c'est important beneen bi mooy bu résultat yi commencé wadd bu ñu fi dagg internet loolu nañ teel a artu Anthony Blinken parce que gars yi moom rek la ñu ragal da leen a wax delloo leen données numériques yi rek ñu données données yi rek ñu gaawantu doon joxe parce que ñemewuñ leen léegi nag nañ teel a wax ak la communauté internationale que jouru élection yi au Sénégal bu ñu dagg internet bi. ku ci nekk bureau de vote ba ngay voté boo voté ba pare na ko encadré toog xaar résultat yi bu ñu résultat yi watee rek nañ gaaw transférer résultat yi ci kii yeeg yépp ñu transférer résultat yi lépp ñu xam résultat yi bu noppi ñu denc PV yi yéen ñi nga am voté ngeen ba pare PV bi nga xam ni moom mooy PV wu Bassirou Diomaye fay mooy PV bi ñëpp di xaar na ngeen encadré pour copie bi ñuy jox ki nga xam ne moom mooy représentant bi ci bureau de vote bi na ngeen ko encadré na ngeen photo bala ngeen a gën ci salle bi photo leen PV bi mais ba ngeen ko photo ba pare euh, na ngeen ko encadré ba PV original bu yóbbu ko këram bu demee yóbbu ko ci fan koy dajalee ca commune ba bu ñu ko paree ñu remonté ko parce que loolu lépp dispositif bi tegal nañ leen ko yéen ñëpp xam ngeen ko ci nekk lan nga war a def loolu lépp euh, Pastef waajal na ko euh, Bassirou Diomaye fay ak ñim àndal waajal nañ ko kon le dispositif tout est clair fii ku fi jéem a foqati élection yi nga fi indi jafe parce que lépp leer na bureau de vote bu ci nekk xam nañ kan moo fa a nekk ak ñan ñoo fa a dem euh, remontée yi ñan ñoo koy def tout ça lépp leer na kon nag li ñu bëgg mooy Macky Sall na organiser élection yu leer bu organiser wul élection yu leer bu amee ay tappale ak ay njuuj njaaj jafe-jafe mën naa am ci réew kon daal fi mu li fi des mooy takk ju waajal élection yi bu ko defee ñu def caravane yi dëkk bi yépp riir Bassirou Diomaye Faye flyers am yëpp mu daw ci dëkk bi ñu taf di yëpp ay bulletin spécimenu Bassirou Diomaye fay ñu waajal ba noppi présenter euh, le programme de Bassirou Diomaye fay ñu wàcc ci terrain bi sénégalais yi accueillir leen massivement euh, la euh, la caravane de Bassirou Diomaye Faye incha allah da ngeen gis leader yi ngeen bugg a gis yëpp daañ nekk ci caravane bi ngeen accueillir leen bu ko defee vraiment ngeen saafonte ak ñoom waajal élection yi ba noppi benn mandataire bu mu tardé bureau de vote ku ci nekk fu ñu la def mandataire sept heures na la fekk na la fekk ci sa bureau de vote nga taxaw euh, sa suppléant sax na ñëw ànd ak yow benn yoon parce que bés boobu ku ci nekk da ngay muñ li nga doon def yéen ñëpp muñ leen même suppléant yi na ngeen ñëw suppléant suba teel ku ci nekk le représentant dans le bureau de vote ak na ñu ànd fajar teel sept heures pile incha allah fekk leen ci bureau buntu bureau de vote ñu taxaw ba noppi nag ngeen. Euh, fexe ba vraiment ku voté nga toog ci sa bureau de vote nga xaar résultat yi bu résultat yi pare ngeen encadré seen représentant bi nekkoon ci bureau de vote ba mu yegg këram ci kàttanu yàlla fekk photo ngeen euh, résultat yi ba envoyé ko ñi nga xam ñoom ñooy QG bi am au niveau de la commune ñu remonté au niveau du département ñu remonté au niveau de la région ñu remonté au niveau du QG national bu ko defee ñu agrégé les résultat ci kàttanu yàlla incha allah ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar ñu duma leen duma leen duma yi méttee méttee méttee